soo seetloo suñoo ut affaire yi ñi ñooy jiital ñi ki député ñi ki kansul eh, ñi nga xam ne ñu ngi xalaa eh, cër mu ngi de seen cër mu ngi xalaa des si gannaaw duñ leen dee xelaat kenn xelaatam di dem si ñooñu te am na ñi nga xam ne liñ man fukka yi nga xam ne seen cër mat na manuñ ko